Guys, what up guys? Hi everybody, sama guy. <laughs> hey, bëggee ñëpp ah di bëggee ñëpp di bëggee ñëpp Some guy bi laay man you know what I'm saying Uh, waaw mooy loolu ah sama coiffure waaw parce que côté bi saxal digg moom du gasama bi you know what I'm saying waaw ah, mooy loolu boy. yeah shout out I Ali Ndaw sama gayan bu dëpp yeah jo Lamine Mané <laughs> I got you my bro That Dagoud from Belgium you know what I'm saying Fatsila Ho you know what I'm saying Fat kidney know what I'm saying? You know, Salif Jara, you know, like Brigham and Mulam Jala, and so on, so on. So, guy, you know what I'm saying? Uh, before going faster, allow me to introduce myself. I go by the name of Malachong, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. You know what I'm saying? Dango family, what up? But, some guy, tell you what, je vais parler de. Euh, je vais parler de la, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, tu vois, tu vois, parce que, je ne sais pas si je le concevoir, hein. Il y a un gars jàng pare prêter serment mais li nga prêter serment doo ko def quoi tu vois man loolu amul concevoir quoi Saint-Ville man nu mu concevoir ay médecins yu grève yow tu es là pour sauver des vies Saint-Ville yow ku yàqale si yow ku am métier si yow la ñëw yow nga ne da ngay grève pour lan pour ay salaire ak yooyu noonu quoi Saint-Ville mën nga takk brassard rouge mais chaque jour nit ñi ngi feebar chaque jour ñi ngi feebar tu vois mais pour l'argent nga def loolu Saint-Fil ñu comme ça ji mu jaar la Youssou Mbargane bu Tëngéej ñu ne ko non mënuñu la fal fu nga dem principal wala CTO nga dem principal CTO nga ñëw gars di laaj ay garantie Saint-Fil ay boo joxul xaalis dina la faj mais feebar ak dee ñoom day bette du doon loolu gars yi ko mais day bette tu vois da ngay ni dara daanal ko quoi nga yóbbu ko hôpital xaalis yow dara sa kàddante nga yor walaay dañ naan couverture médicale universelle ko mais faj leen doomu aadama yi waaye su margat nit day ñëw feebar mais faj ko doomu aadama yi mais ay pour xaalis ngeen bëgg bàyyi nit mu mu noonu non booy loolu sa papa ñëwoon sa ndijaay wala sa rakk da nga koy faj pare soog a xool ah. ay infirmiers yoo dara buñ lay samp mel ni nagu tërëroo yooyu gars yi def di ko samp di ko jam nag bi dee fu ne la jam sa yaram bi isant fil xamuñu dara isant fil di fàtt di fàtt ay wëtteen ci kaw isant fil yeneen ak yeneen ngi mënuñu wax ñu ay sages-femmes yoo amuñu benn kii réew ba nëpp ñu neex nañ accueillir nit ñi amuñu benn pédagogie ñëw di sonal nit ñi quoi ngay feebar ñu xool ñu nga faat sa métit mais dañ lay kii mën na romb ay golo wala dara xëy yéen sages-femmes yi infirmiers ngeen jox seen di def soof ngeen trop ñoo leen di di fay loolu wala ni grève mën leen takk ba à charge wala ngeen def leneen ah ni ni ko am benn gaañu ku accidenté wala ku feebar a xaar ay infirmier comme ma ma